non dafa bëggoon yokk rek. Hmm. c'est-à-dire que opinion publique euh, dafa am solo ci démocratie. Ah, parce que parce que opinion publique mooy euh, euh, ñëpp loolu la ñu seet. Hmm. muy acteur politique bi muy religieux bi. muy social bi c'est soo amee opinion publique dafa jafe lool lool mais ku nekk opinion publique bi lay seet. surtout que boo nekkee ci démocratie démocratie xëcco bi ngay gis les luttes d'intérêt c'est pour nga am influence ci opinion bi mais loolu tax euh, opinion publique bi euh, mooy sujet principal de la presse la presse ne travaille que sur l'opinion publique. les acteurs bu ñu xëyee tamit ñu ngi xool presse bi fan la tendance bi fan la. mais parce que c'est la matière première de la presse maintenant il y a deux niveaux quand mhm. je pense je pense qu'il y deux niveaux. y benn press bi nga xam ne elle est une presse professionnelle. Mhm. elle couvre l'actualité elle délivre l'actualité elle se euh, elle joue toutes ses fonctions. information éducation divertissement. ça c'est la presse professionnelle. maintenant il y a une presse militante. Mhm. cest dire que man ma nekk acteur politique ma créer suma journal ma créer suma rajo suma télé mhm. mais bu leen ma wax waxu professionnel. moi je crée mon groupe pour un but précis moo loolu ngay gis par exemple dans tous les pays euh, développés bah c'est des c'est des milliardaires qui gèrent les groupes de presse mmh.